Serigne Adama Gueye Serigne Adama Gueye mi ngi feeñ jamono ci atum 1844 ci dëkk bu ñuy wax Mbaabu Mbaabu nag mi ngi ci suuf sii nag di Kajoor ci wetu dëkk bii nag di Kilmaxa moom bi mu feeñee jamono ci atum 1844 ci dëkk boobu di Mbaabu moom Serigne Adama Gueye di doomu soxna Assa Dieng ak kii di Serigne Ma Gueye Faa Caam amul kenn nag kum bokkal nag soxna Assa Dieng benn doom la ci waajuram wu jigéen wii bi matee dal alxuraanul karim nag waajuram Serigne Ma Gueye Faa nag moo ko jàngal alxuraanul karim nag ba mu géeju lool nag ci wàllu alxuraanul karim ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ci loxoy waajuram di sëriñ ma géey faa caam toog na fa itam nag ba tàmbalee jàng nag lii di xam-xam ci diggante boobu nag la Mamor Anta Sali Mbàkke nag ñëwoon nag ci suuf soosu nag di Kajoor àndoon nag kam doon wéttali nag di Lat Joor ci la Mamor Anta Sali nag sancee nag dëkk bii nag di Mbàkke Kajoor ginnaaw bu Mamor Anta Sali sancee dëkk bu selli bii nag di Mbàkke Kajoor taxawaloon na fa itam nag lii di daaray xam-xam te daaray xam-xam jooju nag kii di sëriñ Aadama Géey nag bàyyi ko woon na nag dëkk bii nag di Mbaabu ñëw nag doon fa jàng nag lii di xam-xam wala nag doon fa ci daaray Mamor Anta Sali Mbàkke jooju ndax kat jamono jooju képp koo xam ne nii jàngewoo ci daaray Mamor Anta Sali Mbàkke jortu nga ne daal sa fànnu xam-xam des na way laa daal bu ëllëgee sooy nett li daal daanaka danañ la wax ne daara ji gënoon a mag ci tund wi jàngewoo fa muy daaray Mamor Anta Sali Mbàkke loolu itam nag taxoon na kii di sëriñ Xaadama Géey nag ñëwoon fa nag doon fa sàkku si nag lii di xam-xam ginnaaw bu sëriñ Xaadama Géey ñëwee ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor doon fa sàkku si nag Mamor Anta Sali Mbàkke bu mu xoolee ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci melokaan wum am taxoon na nag kii sëriñ Adama Guèye daa wooye ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sama doomu sëriñ sama doomu sëriñ boobu mu daa wooye ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom sëriñ Adama Guèye tax na nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bu masaa de yónnee dara wala muy wut ku muy àndal sëriñ Adama Guèye moomu nag dana ko ko wax ba am bis nag daara jooju nag am bër kenn ku ne nag delluwaat nag ci sa dëkkub cosaan ngir feetu nag feetu googu ñu bari nag neeñ tabaski la am na nag ñu wax ne kër moom ci ñaari feet yooyu benn la ca sëriñ Adama Guèye nag daa del siwaatoon nag ci dëkkub cosaanam boobu nag di mbaabu ngir feetu nag feetu googu ginnaaw bu Mamor Anta Sali Mbàkke yónnee ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ndar géej ci sëriñ Haas Kamara ci ay téerey xam-xam yu mu soxla woon nag sëriñ Haas Kamara nag jox ko ko sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag laajte woon na nag ana ki ko daa wooye sama doomu sëriñ ba ñu di ko xamal ne nag sëriñ Adama Guèye mi ngi mbaabu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag soloon naw dàllam nag ñëw mbaabu doon wax sëriñ Adama Guèye wax ne sama waajur nag ci dëkk bii nag di ndar géej ci sëriñ As Camara ngir nag ay téere xam-xam nag yu ma fay wuti damaa bëgg nag nga gunge ma nag ci yoon wi ginnaaw bu seexul xaddim ñëwee nag ci dëkk boobu nag di mbaabu ci garabu kàdd nag gu nekk ca digg pénc ma ci garab googu nag la taxawoon yónni nit nag ngir mu dem wool ko nag sëriñ Haadama Géey garab googu di garabu kàdd ga sëriñ Haadama Géey taxawoon nag ko baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul bi mu koy wax ne Mamor Anta Sali Mbàkke daf ma yónni ndar garab ga ba nëga ni mi mbaabu muy kàdd ga bu seexul xaddim waxee loolu sëriñ Haadama baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool di ko wax ne nag damaa bëgg nag nga yendu ci dëkk bii nag di mbaabu ndax itam nag ñu man laa teral sa yëre yi nga sol itam nag xaw naa am tuuti nag ak gàkk-gàkk damaa bëggoon itam nga summi ko itam ñu wutal la yeneen yëre itam yoo sol taxoon na itam ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool summi yëre yam yoroon joxoon ko nag kii di sëriñ Adama Gueye sëriñ Adama Gueye itam fabaat yeneen yëre itam jébbal ko nag kii di sëriñ tubaa xaadim rasool bu ñu fóotee yëre nag sëriñ tubaa xaadim rasool doon na wax sëriñ Adama Gueye mu jël yëre ya barkeeloo ko barkeelu yëre yooyu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bisub keroog itim nag ba fa sëriñ Touba Xaadim Rasuul demee ci dëkk boobu di mbaabu te sëriñ Adama Gueye bëggoon mu yendu fa sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag mujj fa yendu ca jamono jooje ngénte moo amoon ci dëkk boobu di mbaabu coowaayul dëkk ba xumbaay ba nag taxoon na ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag waxoon sëriñ Adama Gueye mi ngi dem ba baneen yoon waaye nag na waaj aw yoon dafa bëgg mu gunge ko ndar ginnaaw bu njàppee seen yoonu ndar woowu nag bay dem ndar ci yoon ne damaa war a wutaat waneen yoon nag wu may taxawee wu bokkuteg wii ñu gën a xam muy jàng ak jàngale waaye loola itam damaa bëgg nag ñu maase ànd ci maak yow nga jàppale ma ca sëriñ Adama Gueye itam laajoon na ko itam loola mooy lan ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul itam doon na ko junj nag li ñu tudde yoonu murit bi ñuy dem ci yoon wi itam ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul joxoon na sëriñ Adama Gueye li ñu tudde ak ñaan sëriñ Adama Gueye nag doon na ñaan ñaan googa ginnaaw bu ko sëriñ Adama Gueye dee ñaan nag ñaan gi ëppoon na doole nag kii di sëriñ Adama Gueye ku tàggoog sagoom ginnaaw buñ jógee ndar ba mu delsiwaat mbaabu daara def nag bu gudd jotee nag muy yuuxu ndax loolu muy gis kat suy jàng nag ñaan googu ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxoon ba waa dëkk boobu nag di mbaabu nag waaruwaat nag ci sëriñ Xaadama Géy nag yuuxu yi muy yuuxu guddi nag lan moo ko waral ginnaaw buñ ciy commentaire nag la benn waaye wax ne fan yee paase de am na ku fi ñëwoon ko tuuti di nuroo kub tukkulóor man mii la wooloo woon sëriñ Xaadama Géy ngir ma wool ko ko wax ja nag ba xam ne ko baax ki sëriñ tubaa xaadim la ginnaaw buñ ñëwee ci ko baax ki sëriñ tubaa xaadim di ko xamal ne sëriñ Adama Gueye ba ngeen àndee ndar ak léegi guddi gu jot daal day yuuxu te loolu itam xamuñu ko woon ci moom sëriñ tubaa xaadim nag bindoon na ak ndomb ak baat joxoon ko sëriñ Adama Gueye ngir mu koy takk loolu moo waraloon sëriñ Adama Gueye amoon ndomb ak baat am na itam nag ñu wax ne na sëriñ tubaa xaadim rasool dafa waxoon ne nañ ko indil sëriñ Adama Gueye ci mbàkke kajoor waaye daal li wér te wér mooy sëriñ Adama Gueye daal am na ab diggante bu mu boobee nag ci la ko sëriñ tubaa xaadim rasool joxoon ndomb ak baat gi am na ñu wax ne nag sëriñ tubaa da ko woon mbàkke kajoor waaye daal li wér te wér mooy xissa bi moom la mu wéy nag nekk wólla répp ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ab diir bu néew nag lañ ci teg wala lu tollakum atum yàlla lañ ci teg mammoor anta sali mbàkke nag génn àdduna ginnaaw bu mammoor anta sali mbàkke génnee àdduna ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool jot na nag laneen ndigal nag lu koy xamal ne dafa war a soppiw doxaliin te booba itam fekkoon na nag mu junjoon ci sëriñ a Gueye tax na nag sëriñ a Gueye ñëw nag jaayante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nekk nag murit bu njëkk a dëggal mu wéy nag nekk nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul wéy nag des nag ci dëkkub cosaanam boobu nag di mbaabu ba ni mu génnee àdduna ci atum 1897 mu nekk nag ku gëm suñ boroom ku nangoo jaamu yàlla ku daa saxoo nag di julli ak di naaf saa su ne moom sëriñ xaadama géey nekkiti murit saadeex bu dëggal ci ginnaaw ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nekkitim boroom xaas boroom xaas googu sëriñ xaadama géey nekkoon nag tax na itim nag mu amoon bis nag mu demoon ndar nag doon alxuraan ci ndigal nag lu ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul joxoon moom sëriñ Adama Gueye doon sàkku ci moom nag lu tolloog téeméeri dërëmi ngurdu ginnaaw bu sëriñ Adama Gueye foboo dem nag ndar géej doon ko fa yelwaan ci kër nag sëriñ As kamara nag la daloon sëriñ As kamara nag wàlliwu la itim nag wu nekkoon ci dëkk boobu nag di ndar géej ab xaadir itim nag la woon ndax ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul soo delloo ci marché yëpp maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru Cheikh Moussa Ka mi ngi ñuy xamal ne sëriñ As Camara moomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo ku sëriñ tubaa xaadim rasool demoon nañ ndar géej ci sëriñ xaas tubaa xaadim rasool doon fa sàkku wirdu xaadir ci moom sëriñ xaas kamara moom itam sëriñ tubaa xaadim rasool itam àndoon na fa ak sëriñ xaadama géey ci yónneen bu mamor anta sali mbàkke yónni woon ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool loolu moo waral itam bi sëriñ xaadama géey di dem ndar géej nag di yelwaani téeméeri dërëmi ngurdu yooyu mu dal nag sëriñ xaas kamara moomu ginnaaw bu mu nekkee ndar géej nag di yelwaan téeméeri dërëmi ngurdu yooyu la buur bi nag di sàmba lawbe nag amoon nag ay jafe-jafe ci nguuram ñëwoon nañ nag doon sàkku nag ci sëriñ As Camara mu ñaanal nag buur boobu nag di Samba Lawbe sëriñ As kamara nag mi ngi doon xamal ndaw yooyu ñëwoon ci moom doon ko sàkku nag ak ñaan ngir jafe-jafe yi Samba Lawbe nekkee nag mu jóge ca mi ngi leen doon xamal ne moom de munu leen cee ñaanal waaye jort na ne dong bii fi nekk bu buñ ko diisee li ñu soxla jort na ne moom dana leen ko fajal ndax kat melokaanu sëriñ Adama Gueye mii yéemoon na sëriñ As Camara ba loolu la tontu woon ndaw yooyu ginnaaw bu ndaw ya laajee Serigne Adama Gueye jamono ji dafa yi waaye xam naa ne bu ñu toogee ba boori bëccëg dana ñibbisi ginnaaw bu Serigne Adama Gueye ñibbisee ndaw yi Samba Lawbe yooyu nag waxawoon nañ ko li ñu wax Serigne kamara di ko wax ne Samba Lawbe de dafa nekk ci ay jafe-jafe waaye nag jafe-jafe yi mu nekk nag ak xat-xat yi lañ soxla ku leen ci ñaanal Serigne Adama Gueye nag doon na xamal ndaw yooyu di leen wax ne moom de mën na leen ca ñaanal waaye nag ci barkeb sëriñam dong nag lay sukkandiku nag ngir ñaanal leen ginnaaw bu ndaw yi demee nag ba wax loolu Samba Lawbe yëkkati woon nañ nag téeméeri dërëmi ngurdu yooyu nag joxoon ko Serigne Adama Gueye Serigne génn ginnaaw bu mu ñaanee nag jafe-jafe Samba Lawbe yooyu teggeeku woon na ginnaaw bu Samba Lawbe nag jugee ci xat-xat yooyu tombeeg Serigne Adama Gueye jóge Ndar dellusiwaat ci Mbàkke Kajoor ba jébbal ku baax ki Serigne Touba xaalis boobu Serigne Touba Xaadim Rasuul nag jëlul woon xaalis ba da koo falangoon doon wax nag kii di Serigne Adama Gueye di ko wax ni téeméeri dërëmi ngurdu yu lew laa soxla ndax xaalis bii xaalisu buur la te xaalisu buur bi léwul kii di Serigne Adama Gueye nag doon na xamal ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul di ko wax ne man de njaboot gi ma bokk njaboot lañ goo xam am am bëriwul lool lii di téeméeri dërëmi ngurdu yi nga may loo su ma koy yaakaaree ci yalwaan mi danaa ko yeex a am lool moo taxoon itam bi ma ko sàmba law be joxee ma foboon ko yit la ko ca jataay ba nag la sëriñ aadama Guèye doon xamal ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ko xamal ne am naa rakk doomu baay bu ñuy wax sëriñ ma baabu géey mën naa am nag su ma ca demee diis ko yitte yii dana mën a saafaru ginnaaw bu mu ñëwaatee nag ci dëkk bii nag di mbaabu fekk fa nag soxna Mati Koddu Njaay soxna Mati Koddu Njaay nag moom meññi kii mati koddu njaay nag faboon na ak juróom nag ñu jaay ko ñu jébbaloon ko sëriñ Adama Guèye ngir mu yit ko ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Samba Lawbe itam ginnaaw bu mu jógee ca xat-xat yooyu nag ñëw na nag ba gisee ak sëriñ Adama Guèye doon ko wax ne nag bi ma nekkee ci jafe-jafe yi dégg naa yow yaa ma doon ñaanal ginnaaw buñ la joxee téeméeri dërëm yi ngurdu yooya nag bég gu ci ñaanal goog nga ma doon ñaanal itim moo taxoon nag ma faboon fas wii ak sama ñaari rakk yi nag ngir bëgg la koo jébbal ngir nga dëkkoog ñoom ginnaaw bu sëriñ Adama Guèye waxee Samba Lawbe di ko xamal ne na yaakaar di sëriñ tubaa xaadim rasuul ginnaaw ba mu ko waxee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim nag defoon na ab ndénkaan ci sëriñ Adama Guèye ci laaj googu mu ko laaj nag ci loolu ko Samba Lawbe bëgg a defar ma koy wax ne nag ca tàmbali ndénkaane ba ginnaaw nag ak cant nag ñeel na nag képp koo xam ne nii daa xamul nag te bëgg a laaj ca ginnaaw bu mu jullee ci ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ma ngay wax nag ci biir ndénkaane ba yow sëriñ Adama Guèye murit saadeex bi bu fekkee ne nag namm nga nag leeruk suñu boroom na nga sax di jaamu nag suñu boroom bul nekk nag kuy jaamu nag jigéen ñi na nga nekk itam nag kuy wéeru nag ci suñu borom tey sàkku nag saa su ne ngërëmam da ngay sax nag di jixaat di sellal nag sa bakkan ci diirum nag li ngay dund bul nekk itam nag di geesu nag lu nekkul nag sa borom lépp loo xam ne ni nag dafa fas yéenee dox nag sa diggante digganteeg sa borom itam nag nanga nga moytu loolu te sori ko na nga wéeru nag ci sa borom boo jéng itam nag na nga jéng nag jëm ci sa borom ragal yàlla itam nag dee ko def nag foo toll te itam nag bu la dara tiital saa boo jaaxle itam na nga wëkkiiru rek ci suñu boroom ndénkaane boobu nag la ko baax sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag defoon nag ci sëriñ Adama Gueye ginnaaw nag bu ko Sàmba Lawbe fas yéene woon a jébbal nag ñaari rakkam nag ak yeneeni àddiye nag ci béggum béggoon nag ci jafe-jafe yum nekkoon nag te kii di sëriñ Adama Gueye ñaanaloon ko ci ndénkaane bii nag la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul defoon ci moom ñu teewlu ko amdan liman qad awjaba su'ala anil lasina kaarihu darara musalliyan ala rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi sawil huda asa wa ya aadamu ya muriidu in kunta nuura rabbina turiidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min aabidin niswaani kun mutaannisan bi rabbika alajib waltamisan ridwanahu takun tujib fadum ala alikhlaasi walmujahada bi nafsin dahran fatanaalu faida wala takun multafitan ila lima yasibuk xalbaka ala rabbi sama wa kulla ma yahulu bayna rabbika wa baynahu fadruk tafuq xayraka wa lus bi rabbika wa mil wa taqqihi wa takkilan alayhi allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim loolu mooy ndénkaane bi sëriñ tubaa xaadim rasool defoon ci sëriñ Adama Guèye mu wéy nag des nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool moom sëriñ a Guèye yoonu murit itam nag wéy nag di màgg ba tax na itam ñu baree baree bari ci yoonu murit ginnaaw yàlla nag sëriñ Adama Guèye moom moo leen indi nag ci yoon wi ñu man cee ràññee rakkam sëriñ ma baabu Guèye man cee ràññee itam jàmbaari ku baax kii di sëriñ tubaa xaadim rasool di maam cheikh ibrahima fall ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci yoon wi ndax doxaliinu sëriñ Adama Gueye murit kaamil la woon melokaanu murit googu mu amoon ak doxiinu murit googu mu daa dox sax tax na bi ko maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baamul murit dina njëkkee gis dafa topp ci moom jaayanteeg moom di ko wax ne yow mii fa nga jóge ka may wër fa la nekk ba tax sax lool moo waral kii di maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul murit diina ci noonu la def ba gisanteeg ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci Cheikh Adama Gueye la jaare kii di sëriñ tubaa xaadim rasuul di sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mas na wax nag njabootu sëriñ xaadama géey di leen wax ne sëriñ tubaa xaadim rasuul de bu fekkoon nag dex la sëriñ xaadama géey daa naan ba màndi kon nag képp ku naanaat desu sëriñ xaadama géey nga naan cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul mas na wax sëriñ moustapha géey yërwaay mii doomu cheikh ma baabu géey di ko xamal ne diggante sëriñ xaadama géey ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ne ndab la sëriñ tubaa xaadim rasuul a tibb sëriñ xaadama géey nag la ko wi tax te xam na ne day tàng day sakkan sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul saa bu masaa ñëw Mbàkke Kajoor balaa def dara dana jàll ci bara barabub sëriñ Xaadama Géey ziyaare ko ñaanal ko daana wax na sëriñ Xaadama Géey de mi ngi nii mi ngoo ko lépp lu fi waaye ñaan dem mu faju lépp lu ko waaye diisitim mu fajal la ko xamoon ne yittey sëriñ Xaadama Géey ci yoon wi sëriñ Moustapha yar Yarwaay nekkoon doomu sëriñ Cheikh ma baabu Géey sëriñ Moustapha Géey Yarwaay itam bokk na itam ci ñi nga xam ni ci loxoy ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul lañu yaroo wax Touba Xaadim Rasul mas nay waxtaan ak moom di ko wax ne sa baay ba sëriñ Adama Guèye a def rek la def ci moom yàlla mu war a def dara ña ko war a def dong nag lay boole nag ngir ñu def ko daat koy jàngal nag ab aaya ñu teewlu aaya bi sëriñ Touba Xaadim Rasul jàngaloon sëriñ Moustapha Guèye yarwaay ci keroog bi mu koy wax ne sa waajur wa sëriñ Adama Guèye li yàlla war a def rek la defoon ci moom inna laaha astafaa aadama wa nuuhan wa aala ibrahima wa aala imraana ala aalamiina surriyatan baaduha min baadin wallahu samiun alim ginnaaw aaya boobu ngeen dégg kii di sëriñ Moustapha Guèye Yarwaay itam daana ci teg ne sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam daana jàngaat itam beneen aaya ñu teewlu ko saraxa lakum min diini maa wasee bihi nuuhan wallazina awxaynaa ilayka wa maa wasayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diina wala tatafarraxu fihi kabura alal musrikiina aaya yii ñu leen indil li tax nag ñu dégtal leen ko sëriñ Moustapha Guèye Yarwaay su masaa nag di nettali li ko sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul waxoon nag ci waajuram woowu di sëriñ Adama Guèye nii la ko daan nettalee baax xaadim rasul itam keroog ñaari aaya yii nag la indi di ko wax ne li war a am rek moom moo am loolu itam moom moo tax itam ñu indil leen ko nii ko sëriñ Moustapha Guèye yarwaay daa nettalee ginnaaw bu sëriñ Touba xaadim rasul jógee ci dëkk bi nag di Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal sanc si Daaru Salaam ak lii di Touba lépp itam sëriñ Xaadima Guèye àndoon naag moom waaye nag fekkoon na nag sëriñ a Guèye nag jot ngërëm nag ba delluwaatoon nag nag ci diirum bu sell bi nag di Touba saa bu ko sëriñ waral bi sëriñ Touba Xaadim Rasuul di dem ci géej gi ci atum 1895 sëriñ Adama Guèye mi ngi ci dëkk cosaanam bii nag di mbaabu foofu itam nag la nekk ba ni mu génnee àdduna ci atum 1897 laataa muy génn àdduna ci atum 1897 ab feebar nag moo ko tëraloon ci dëkk boobu nag di mbaabu ci la dajale woon nag mbooleem njabootam gi di leen xamal ne maa ngi dem waaye fu ngeen ma dégg rek ni ngeen ma fa fekk si ginnaaw bu mu jógee mbaabu nag la ñëw nag ci dëkk boobu nag bu mu fa amee nag lu tolloog ñaari àdduna ñu jébbal ko boroomam ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ginnaaw bu mu génnee àdduna moom sëriñ Xaadama Géey rakkam ja sëriñ Cheikh Ma Baabu Géey moo bindoonum lettre ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di ko xamal ne sa taalibe bu njëkk ba këla gëmoon te fonk la te yemalewula woon ak dara génn na àdduna di Cheikh Adama Géey ci sa dëkk ba mu jaayante woon ak yow itam di Mbàkke Kajoor mujj nañ ko denc itam ci Mbàkke Kajoor kaamilub alxuraan nag la Cheikh Ma Baabu Géey boole woon ak lettre boobu mu doon yëgale sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di ko xamal ne sëriñ Adama Géey génn na àdduna kaamilu alxuraan boobu na sëriñ cheikh ma baabu géey bindu ko woon waay kuñ doon wax sëriñ ibrahima silla moo ko bindoon jaayoon ko sëriñ cheikh ma baabu géey ginnaaw bu sëriñ tuuba xaadim rasul jotee lettre ba ak kaamilu alxuraan boobu koy yëgal ne jàmbaaram ja cheikh adama géey génn na àdduna sëriñ tuuba xaadim rasul dafa yónneewaat kaamilu alxuraan ba sénégal boole kookub lettre jox ko maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne lettre boobu ma yónnee ak kaamil boobu jébbal ko sëriñ ndaam abdourahman loo saa bu cheikh mahamadul basir mbàkke sama moom matee dal alxuraanul Karim nañ ko ci dalal alxuraanul karim kaamil boobu ci la cheikh mamadul basir mbàkke nag njëkk a dale alxuraanul karim ci ndigalul ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul ci loxoy sëriñ ndaam abdourahman loo kaamil boobu sëriñ cheikh ma baabu géey jébbaloon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim di ko wax ne sëriñ haadama géey ma njëkk a jaayanteeg yow génn na kaamil boobu itam mi ngi ci njabootu cheikh mamadul basir mbàkke mag moom lañ ko def kon jamono mënoon caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ ma géey jama ibnu sëriñ aadama géey moom sax moo njëkk a nekk ab xalifaam am na itam ku ñu doon wax sëriñ Moussa géey jama ibnu sëriñ aadama géey sëriñ Moussa géey jama mii ci ñi nga xam ne nii sëriñ tubaa xaadim rasul moo leen yaraloon boppam ci njaareem ci la bokkoon ba tax na daanañ ko wax sëriñ Moussa géey gaal doomu sëriñ aadama géey la ak ku ñu doon wax sëriñ ibrahima géey ibnu sëriñ aadama géey ak ku ñu doon wax sëriñ faaruma géey doomu sëriñ aadama géey la ak ku doon wax sëriñ xàllun géey moom itam doomu sëriñ aadama géey la woon ak ku ñu doon wax sëriñ Adama Guèye la woon ak seen ñetti jigéen ya nag di soxna Assu Guèye bintu sëriñ Adama Guèye soxna bu sa Guèye bintu sëriñ Adama Guèye ak soxna Yaasin Guèye bintu sëriñ Adama Guèye njaboot gi nag la fi sëriñ Adama Guèye bàyyi bim ñuy dëddu waaye njaboot gii gépp itam kenn rek moo ko ci wuutu muy sëriñ Modou Guèye Jama ñi ci des itam ci xilaaf ak sëriñ Modou Guèye Jama lañ génnee àdduna loolu moo waral bi fi sëriñ Modou Guèye Jama jóge sëtti sëriñ Adama Guèye tàmbalee wuutu seen maam ja sëriñ Adama Guèye ne ku relation la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba ràññee maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke Ndaamal Daaru bi mu génnee àdduna maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke Ndaamal Daaru moo ko taxawu ci dëkk boobu di Mbacke Kajoor moog waajuram wa Serigne Mbacke Kajoor ba tey Serigne Adama Gueye itam ko amoon ak jaxasoo la ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina maam Cheikh Ibrahima Fall tudde woon na ko ab taawam muy soxna Adama Gueye Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mas na seeti itam ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul mu di ko xamal ne Cheikh Ibra dama bëgg sa njaboot jaxasoog njabootu Adama Gueye loolu itam nag taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina comme gisatul woon nag sëriñ Adama Guèye mu foboon taaw sëriñ Adama Guèye bii di sëriñ ma Guèye jama jébbal ko doomam ju ñuy wax soxna ummi xayri Fall soxna ummi xayri Fall mi laataa muy amuk njaboot ak kii di sëriñ Moodu Guèye jama dafa génn àdduna maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina fobaatoon baneen doomam bu ñu doon wax soxna ummi Kalsoom Fall jébbalaat ko sëriñ Moodu Guèye jama ngir nag di sàmm ndi ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Sol mi doon wax ne dama bëgg sax njaboot jaxasoog njabootuk sëriñ Adama Fall mii nag am na ak njaboot ak kii di sëriñ Modou Guèye Jama ñu man caa ràññee ku ñuy wax soxna Rama Guèye bintu soxna Ummu Kalsoom Fall bintu sëriñ Modou Guèye Jama soxna Faati Guèye bintu soxna Ummi Kalsoom Fall bintu sëriñ Modou Guèye Jama sëriñ Baara Guèye ibnu soxna Ummu Kalsoom Fall ibnu sëriñ Modou Guèye Jama ak ko ñuy wax sëriñ Elaaji Guèye ibnu sëriñ Modou Guèye Jama ibnu soxna Ummu Kalsoom Fall soxna Ummi Kalsoom Fall bu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp mu muridiinam ñeenti bant yi nag la am ak sëriñ Modou Guèye Jama mi nekkoon taawub sëriñ Haadama Guèye maam Saliou Fall bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul ko amoon ak relation la ak kii di Serigne Adama Guèye ba tax na maam Saliou Fall tudde woon na doom na kii di Serigne Adama Guèye Serigne Adama Guèye Fall mi ngi fi woon te maam Saliou Fall Serigne Adama Guèye la ko tudde woon seex Ibrahima saar Njaañ bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul ko jaxasoo woon ak Serigne Adama géy la ba tax na biñ fekkentee ci ëttub ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul lu bare bari ñoom ñaar defandoo nañ ko relation boobu nag taxoon demee ci njabootu sëriñ Adama Guèye daa fa fekk sëti sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ soo demee ci njabootu sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ itam daa fa fekk sëti sëriñ Adama Guèye ndax ak jaxasoo guñ amoon nag ci biñ fekkante ci ëttub ko baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul te sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul itam boole na leen lu baree bari sëriñ Góora Badiane bokk itam ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul tudde woon na kii di sëriñ Adama Guèye doom ndax sëriñ Adama Badiane mi ngi fi woon te sëriñ Góora Badiane kii di sëriñ Adama Guèye la ko tudde woon yeneen mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul itam ñu ci baree baree baree bari amoon nañ ak jaxasoo ak kii di sëriñ Adama Gueye ndax Pastef gum amoon ci yoon wi ak fonk nag gu ko sëriñ Touba Xaadim Rasuul fonkoon nañu wax ne bépp mag bu mu fekkanteel ci ëttub ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul soppeb sëriñ Adama Gueye nga woon wala réem nga woon sëriñ Adama géey nag nekk nag ku am tawféex nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ñu man caa ràññee ñu bare baree bari ci yoonu murit ginnaaw yàlla nag ci loxoy sëriñ Adama Gueye lañ jaar nag ba jaayante ku baax ki sëriñ Touba Xaadim ñu mën cee ràññee rakkam sëriñ Cheikh Mababou Gueye maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ba tey ci taw feexi sëriñ Adama Guèye bokk na itam ci ñi nga xam ne ni ku baax Xaadim Rasul su masaadi bi ko Mamor Anta Sali Mbàkke yónnee nag ci dëkk boobu nag di Ndar Guèye ci kii di sëriñ As Camara keroog sëriñ Touba Xaadim Rasul mbaabu la dem fekk fa sëriñ Adama Guèye ne Mamor Anta Sali Mbàkke damaa yónni Ndar te damaa bëgg nag ñu ànd ca yoon wa ba tey ci taw feexi sëriñ Adama Guèye bokk na ci mbubbam jox ko sa mbubbu moroom ba tey ci taw féexi sëriñ na itam ci ñi nga xam ne ni sëriñ Touba Xaadim Rasul bind na ci ñoom ngir di leen wax niñ war a doxale seenu murit ba tey ci taw féexi sëriñ Adama Gueye doomam sëriñ Modou Gueye Jama bokk na itam ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo njëkk a juddoo ci dëkk bu sell bii nag di Touba ba tey ci taw féexi sëriñ Adama Gueye bi yoonu murit di metti lépp fi la ko fekk ba tey ci taw féexi sëriñ Adama Gueye bi mu génnee àdduna ci atum rakkam ju sëriñ cheikh ma baabu géey moo bindoon lettre ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul boole ko kaamilu alxuraan kaamilu alxuraan boobee ñu doon yëgale ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul doon ko wax ne sa taalibe bu njëkk ba génn na àdduna di sëriñ Adama Géey cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul ci la ba tey ci tawféexi sëriñ Adama Géey bi mu génnee àdduna bañ denc ko ci mbàkke kajoor ginnaaw bu sëriñ tubaa xaadim rasul jógee ci géej ñëw na ba foofu mu tëdd ci mbàkke kajoor ñaanal ko ba tax na sax bis boobu nga xam ne ni ci la sëriñ ba foofu mu tëdd ci armeer yi Mbàkke Kajoor yi doon ko ñaanal moom sëriñ Xaadama Géey di ñeenti fan ci weeru korite sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke mi nekkoon xalifab sëriñ Touba Xaadim Rasuul waxoon na njabootu sëriñ Xaadama Géey gi ñu di ko màggal ba tey ci taw féexi sëriñ Xaadama Géey ginnaaw bu sëriñ Touba Xaadim Rasuul wootee nag lii di yoonu murit moom moo njëkk a jaayanteeg moom nekk itam nag murit bu dëggal tax na murit yu baree baree baree ci mag ñi daanañ ko roy ndax yaakaaroon di ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul di mbàkke kajoor ci bisub àllarba fukki fan ak juróom ci weer wi nag di weeru koor ci atum 1314 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom ci weer wi nag di weeru koor ci atum 1314 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi 17 février 1897 mercredi 17 février 1897 ci dëkk boobu nag mu doon liggéeyale ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul di mbàkke kajoor maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo ko taxawu sëriñ mbàkke kajoor moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yi mbàkke kajoor yi booba nag kim yaakaaroon di ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool mi ngi ci tukki bi mu dëppoog nag bi sëriñ tubaa xaadim rasool demee ci géej gi ba am at nag ak juróom-ñaari weer at ak juróom-ñaari weer nag yu sëriñ tubaa xaadim rasool nag def ci tukki bi tombeeg nag la taalibeem bu njëkk bi nag génn àdduna di sëriñ Adama Gueye moo tax soo delloo ci marché bi nga xam ni ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Baas moo ko defal sëriñ Adama Gueye mag ñuy wax nag jikkoy sëriñ Adama Gueye melokaanam ak liggéey nag mu rasuul ak taqoogum taqoo woon ak xaadim rasuul ak itim dëkk boobu mu cosaanoo di mbaabu nam fa jógee ñu baree bari itim nag ci yoonu murit ginnaaw yàlla itim ci mbirum sëriñ aadama géey leen jaare nag ba ñëw ci yoon wi loola itim nag kii di ahmadou baas itim ma ngi koy tudd ci marché bi mu defal kii di sëriñ aadama géey ndénkaane bu ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim defoon itim ci sëriñ aadama géey loola itim ma ngi koy junji itim ca marché ba marché bu yaatu daal la sëriñ ahmadou baas mi defal kii di sëriñ aadama géey ñu teewlu ko awalu man amana bihi wa aslama bamba wax Sullama moo njëkk a jaayante ci yoonu Bamba njëkk a liggéey ngir yàlla ak yoneen ba moo njëkk a am ngërëm sagal na mbaabu moo yóbbu woon rakkam ja Cheikh ma baabu moo yóbbu woon seex Ibra Fall Kamal ba mooy sant yong ba mooy ko xamutaal ba moo njëkk a ràngoo daraja yi iraada def am muridu naara xarxaxaada xaasaawa yaa aadamu yaa muridu bam ko wax Cheikh aadamay ma jiitu ca assasin la jox sëriñ ba boppam Mbàkke Kajoor te daal di jël ab goppam laxas ndigam soobu di xëy ta tool ya di góor di ba xëy na jot ya Mbàkke Kajoor ñu boobu nag ngeen doon teewlu nag mooy marsiya bi ko sëriñ Ahmadou Bass defal di bind itim moom la doon defal nag kii di sëriñ Adama Gueye nag di ñu wax moom mooy kan sëriñ Adama Gueye nag ay xalifaam nii la tëddee sëriñ Magueye Jama nekkoon ab taawam moo ko wuutu ci atum 1897 ba atum 1947 liñ tudde nag doomu sëriñ Adama Gueye yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët yi tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Abdou Samad Gueye ibnu Gueye Jama ibnu sëriñ Haadama Gueye moo nekk itam ñaareelu xalifa sëriñ Haadama Gueye mi ngi toog xalifa ci atum 1947 ba atum 1952 ñetteelu xalifa sëriñ Haadama Gueye mooy sëriñ Basiiru Gueye Warkooñ ibnu sëriñ Ma Gueye Jama im ibnu sëriñ Haadama Gueye moo fi toog ci atum 1952 ba atum 1983 ñeenteelu xalifa sëriñ Haadama Gueye mooy sëriñ Moodu Gueye Warkooñ ibnu sëriñ Ma Gueye Jama ibnu sëriñ Haadama Gueye moo fi toog xalifa nag ci atum 2023 ba nëga ni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Adama Gueye bii ndax saglakat ci njabootu sëriñ Adama Gueye ak mbooleem nag ñi mu séqal sëriñ Adama Gueye moo xam góor ak jigéen sëriñ Adama Gueye nag am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ci li ñu tudde nag ak màggal ndax bis bii mu génn àdduna di fukki fan ak juróom ci weeru koor gi lii di njabootuk sëriñ Adama Gueye danañ koy fàttaliku nag ci dëkk bee di njaareem ci teewaayu nag njabootuk sëriñ Adama gi màggal gi ti bëccëg la at mi ñu fàttaliku seen maam jooju di sëriñ Adama Gueye ci li ñu tudde nag njàngum alxuraanul karim wàcceel ko ay kaamil ndax yool bi fekk ko foofu mu tëdd màggal ga itam sëtam bii nekkoon ñetteelu xalifaam di sëriñ Basiiru Gueye war ko ñitim moo ko taxawaloon am na beneen bis nag buñ koy fàttaliku nag ci Touba olom ga xalifaam bi nag di sëriñ Modou Gueye war kuñ nag mooy ki koy amal bu njëkk nag sant sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke la woon ak waajuram woow nag di sëriñ Modou Gueye jama ginnaaw bu mu toogee nag toogaayub Cheikh Adama Gueye ak sëriñ Modou Gueye jama la ca dolli nag ci bis booba nag di ci fàttaliku fàttaliku waale nag maamam ja nag Cheikh Adama Guèye am na beneen bis nag bu ñuy fàttaliku kii di sëriñ Adama Guèye muy ñeenti fan ci weeru korite di bis bi nga xam ne ni ci la sëriñ Touba Xaadim Rasul ñëwaatoon nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor doon seet si nag waajuram wa sëriñ Mbàkke Kajoor ci ñeenti fani korite yooyu nag jàlloon na nag ci barabub sëriñ Adama Guèye ba doon ko ñaanal ak itam nag di nemmeeku waale fa taalibeem bu njëkk ba tëdd bis boobu itam muy ñeenti fani korite gi njabootu sëriñ Adama Guèye itam ñi ngi koy fàttaliku ndax bis boobu kat ci la seen suul ñëwaatoon nag fekk ko foofu mu tëdd ci armeer yi mbàkke kajoor yi doon ko ñaanal sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbàkke moo joxoon ndigal nag njabootu sëriñ Adama Gueye gi di leen wax na ñeenti fani korité sëriñ Touba Xaadim Rasul fanaanoon na ko mbàkke kajoor te guddi googu nag jàlloon na ko ca barabu sëriñ Adama Gueye ba doon ko ñaanal loola itam nag tax na sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbàkke joxoon njabootu sëriñ Adama Gueye ngir itam nag ñuy dundalaat bis boobu kon sëriñ Adama Gueye itam danañ ko fàttaliku ci ñeenti fani korité ci këram googu nag mu am ci mbàkke kajoor ak yeneen ak yeneen bis yoo xam ne ni nag njaboot njabootu sëriñ Adama Gueye ñi ngi koy fàttaliku nag di ca ñaanalaale seen maam jooju di sëriñ Adama Gueye ñuy ñaan ci ka njëkk a jaayanteeg ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul di sëriñ Adama Gueye yàlla na suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem njaboot gi mu fi bàyyi te moo xam góor ak jigéen yàlla na ci suñ borom teg loxo te sàmm leen te aar leen lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey ka njëkk a jaayanteeg ku baax ki sëriñ